léegi nag sangu farata. waaw koo dégg mu naan la bëri na ay yoon rek. xam nga jàngalike dafa am ñu doy waar. alaaji ko wax. Eh, eh, maanaam. yaanu bëri na maanaam alaaj góora a. dëgg rek da ngay gis kuy firi baat. dëgg yaa ko xamul lu muy firi. Ah. bu dee naa fekk danaan baat bi nag. bëri nay firi. yokk bëri na ay yoon bëri na ay yoon. ça veut dire kon da caa jël benn. mais sangu farata. boo ko doon def tey góor da wut ndox mu set soo amoon ndox tey teg ko fii bu set abal ma bidon bi saane mii nii waaw jox ko taxul taxawul bu jox ko xam nga Cheikh lii ah. kii amul amul sobe waaw laab na uh-huh. taqul dara waaw parce que boo gisee ngay jàpp ah. jëkk a sotti fii ah. dañoo bëgg nga xool kuluuru ndox mi nu mu mel ndax changé na wala déet lu tax nga teg ci sarax galax ndeku pour nga xool ndax saf na dara su tax nga teg ci sarax le xool ndax xew na daal moo tax ñett yi benn du ci farat yëpp ay sunna la benn du ci farat sunna la lii di ay ngeneen ah, ah, yow ko woon xam naa ko xam naa luy nga xam nga te xamoo yooyu yëpp boo ko seetee benn du ci farat moo tax bi ngay raxas loxo bi waaw galax ne ko sarax ne ko doo yéene boo yegsee fii ngay yéene nag farata ji ndax lii farata la ah. te farata moo attan farata sànqaleñ moom la ñay àttan mais sànqaleñ àttanul ñay la farata ñay la sunna sànqaleñ la moo tax sooy jàpp raxas bii raxas bii galax ne ko saran yëpp du ci farat boo yegg si fii nag sëlmu mooy farata nga fas yéene jàpp nga yéene fi nag ci sa xol rek jarul tudd defal ci sa xol rek jàpp te jaamoo ko yàlla moo tax nga sotti fii pour xool couleur bi ñam pour xool lu muy saf sarax le ko pour lu muy xeeñ ñu ne la leer na kon ñetti melokaan yi soxla li muy saf li muy xeeñ ni mu mel bu fekkee saanix yi dara changé wu ci loolooy ndox mu laab très hmm. kon leer na su ñett yooyu dajee ba nga xam ne leer na lu ci des nag mooy farata léegi nag yaa ngi war a sangu nag waaw gis nga boo sangu tey gis nga loxo bii waaw raxasal ñetti yoon bii droite bi waaw raxas bi ñetti yoon ñetti hmm. bi commencé il fii nombril lii mooy jumbux jumbux waaw commencé fii di raxas waaw nombril kanam ak ginnaaw yii yëpp boo yegsee ci sa awra fii waaw foofu nga yéenee ci sa xol sangu farat loolu jàpp ah, ci awra bi mais yii bàyyi ko xel am na jumbux yu xóot mën nga ko tëb ci sangu mi dañoo bëgg nga tooyal biir bi am na jumbux yu ko jarul comme yooyu mel ni pompe pompe voiture yooyu. waaw corne voiture yooyu jaru ko ndox mi day. bara day day ah, dem waaye bu dee bu am euh, kii nag. danga nga koy toppatoo raxas biir jumbux bi lii téere yi dañu loolu la ñu bind. nga raxas nag nii kanam ginnaaw. raxas gis nga fii. yegg si fii ba ci oom bi waaw ñëw ba fii. waaw soo yegg see sa awra nag. fii nga yéene nga yéene boo xasee yéene nag xam nga fii pare pare na secteur bi waaw diggante fii ak fii léegi nag nga def njàppal benn benn xam nga boo daan jàpp ñett yoon ngay raxas mm-hmm. léegi nag benn nga koy def mm-hmm. bii raxasoon ko bu la neexee bu ko baamuwaat su la neexee raxasaatal bi benn bii benn mm-hmm. galax ndeku sarax ndeku sël mu benn yoon benn yoon benn yoon massa aller retour massa nopp yi lu des tànk tànk yi gis nga tànk boo koy raxas bu dee ngay joor ci baaraam bi. waaw bu ndaw sëñ Babacar daanaka na koy loj. loj ko waaw. roof fii say ba xam nga am na baaraam yi def nii. soo raxasee nii fii dana bañ a kon defal nii. nga loj ko. jàpp yombul de. raxas. fii mooy dojjoor mooy ñaari yax yi. dojjoor fii lay yem. bu dee ndeyjoor bi commencé ci baaraam bi baaraam bu mag bi waaw bu mag bi jëm bu ndaw ba jëm ci bu ndaw bi ba fii uh-huh. kon jàppal yegg na mmh. léegi nag dugalal sa loxo bu dee bool la waaw bu dul bool sas la defal nii waaw sas waaw bu mu ci doon waaw su dee bool la tànqal waaw bu dul bool la tàllalal waaw soo tàllee ba mu fees sa ndox wacca ndox mu wàcc uh-huh. nga fii seex bi caxu ko baa li ngay def. fii ah. ngay commencé massa bi de. waaw ci ndong gi xëcc. ba ci jëbi. waaw lu tax. lu tax loolu. lu dañu ne Cheikh nit bu dee sëq ak jabaram wala muy gént. waaw kanu doomu aadama dafa am ay bën-bën day ubbeeku. waaw poor yi boo xëyee boo jëlee ndox mi sotti ci. Ah. day dugg ci sa bopp. waaw mën na la jox soj mu dul wér. waaw mas naa ko jàngale. benn xale ne ma tonton xanaa moo tax si soj mu dul wér. Eh. nga ko dafa réew. waaye njàngale maa ko laaj. <laughs> xamul ne dama yor <laughs> yaaf. mu defee ne soj laa yoon voilà moo tax ngay fii ngay commencé bu njàpp li pare. bu njàpp li ba ci jëbi léegi nag defal nii cheikh. defal nii tànk. walla nga ne nii ci sas bi. bu la ci neex. bu dee paan la neen nii. bu dul paan neen nii. soo duyee ba mu fees xam nga wax naa la commencé fii. ba fii. léegi defal nii. ba mu fees. Hmm. di nga alaaji góor rasta yi. rasta yi la war a dagg. di nga rasta yi pardon waaw bu doon mees la. boo sangoo du baax. waaw rasta yi nag la. ma wax la leneen. xam nga karawam la. bu doon mees la. du baax. mais yonent bi saanix tuddul mees. waaw parce que jamono bii fi ne mees amul. mees amul woon jokk rek la ñu wax. waaw soo rawoon sagar tey def ko ci. boo sangoo baaxul. soo jëloon ay filifeer jokk ci baaxul. soo ci jokkoon buum baaxul jokk rek la Muhammad wax. jokk lu ci yokk daal laahu alwasilata wal mustawsila hmm. Muhammad nee na. kii jokkalaate. Hmm. du daje yërmande yàlla. Hmm. ki ñuy jokkal du daje yërmande yàlla. kon da yàlla yërëmul kenn fi lii nag. karawam la. su doon tey ay mees la yu mu ci takk. Ah. kooku dañ koy dindi bu sangoo du baax. waaw moom nag. karawam la. biiru jokk léegi nag. jëlal sa loxo. roofal ci biir ci biir karaw yi. voilà day roof bu ci sottee lox mi day roof nii. karaw gi tooy. benn yoon nga benn nga cheikh. nga dolli beneen. waaw roofaat. muy beneen. muy ñett muy ñett. ñett yi bopp bi nga doog a def nii. wala nga def nii. waaw ci def baax na. bu dee chasse defal nii. bu dul chasse defal nii. defal nii. sa nopp waaw. dégg nga luñ ci bëgg. biir pax mii. kii dafa bokk ci sangu mi. roofal nag sa baaraam fii. pour biir bi koy waaw biir bi fii. génnal ci kubéer bi nii. waaw oh. ko xam nga am na fii dafa bëri ay roq. waaw ma butéel bi. def nii. raxas sa naam. mën raxas. waaw yegg si fii. waaw ko fii buñ la laajee looy wax. nga ne dañoo bëgg kaw yii. waaw yegg suuf yi. soo continuer ba fii boo raxasee fii kon suufu fii day njëkk a yegg kaw fii hmm. kon yemal fii taxaw waaw def nii nag jël waaw jël côté gauche bi bi def nii dëngal walla roof fii baaraam bi ci pax mi waaw kubéer gi uh-huh. bi ci nopp léegi nag li dal fii ba fii kanam a ginnaaw raxas ko xam nga fii pare na léegi secteur bi del si ci côté droite bi nag raxas mu wàcc ñëw ci côté gauche bi raxas mu wàcc waa léegi sa loxo bu jotul nii nag nii waaw ci ginnaaw nii waaw xam nga nii am na ñu mënul lii waaw léegi bu fekkee am na ku mënta def nii nag waaw nga tooyal waaw ah, ci biir ndox mi bu dee siwo waaw bu dee sas la defal nii waaw billahi bii ñu bëri duñ ko def man de dinaa sangu ji dinaa sangu loolu moom maa la ko xool xale yu jigéen yi nga xam ni ñuy duggee la ñuy génne xaar ma àgg mii mooy sangu farat ñi la ñuy sangoo farat